ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñuy ànd ak yéen ne boole ci du ñu ànd ak ma bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. ci actualité chers internautes euh, de la semaine bokk na ci le marathon budgétaire qui a démarré également la semaine dernière depuis jeudi. passé bokk na ci lu soxal wàllum natt gi ñu nattal gaf ak yenn ci ay kilifteef yenn ci ay mbankaan ay ministères bokk na ci plus de 4000 milliards yoo xamante ni euh, assemblée nationale adopté nañ euh, vote boobule jox ko ministre bi ñu dégg wàllum gaf ak réew mi euh, waaye ci biir gaf ak googu da ciy jukke ay koom ay koppar jagle ko yenn ci ay mbankaan ay ministères mu mel ne nag li gën a dawlu yaram li gën a en fait métti si xolu Sénégalais yi. mooy assemblée nationale ak posture ak euh, melokaan bi mu am jamono ji euh, parce que ku ne xam ne le rôle de l' assemblée nationale dans une démocratie euh, qui se respecte c' est de contrôler l' action du gouvernement les politiques publiques malheureusement c' est le contraire parce que quand on a vu tout récemment Euh, dóorante kii euh, xasante beeg dàggasante ba fa am bokk na ci moom Lamine Diallo yëkkati na fay kàddu ŋàññi Moustapha Niass dóor ci taabal ji ne dafa euh, doo ko li li li nga bëgg du fi am li li lii moo fi am gis nañ fi ministre Zahra Iyane Thiam ak Yafatou Diagne euh, seen pëcc xoobeeg xeex bi xuloo bi dégg nañ fa Woré Sarr ak ay Sow Diawara ma nga xam ne ngi doon doxante rendez-vous pour xeex ci hémicycle bi bu ñu génnee ci bi Ndeye fa Sali Dieng euh, Ndeye Sali Diop Dieng di def euh, votam également ak koppar yu ñu jàppale dañ ko jox ay mareyeurs yoo xam ne ci lañ ko def favoritisme maanaam 250 millions yoo xam ne sur 500 millions destinés aux femmes ñoom dañ leen ko jox ñu bénéficier ko ci mu jàpp ne moom Woré Sarr loolee favoritisme la maanaam Euh, appartenance politique la ñu séddale ko pare ma fan ne ma fa jàpp ne loolu du yoon ndax askan bi c'est l'argent du contribuable ñëpp ko bokk àll réew mi la budget ba ñu voté mi 4000 milliards jógewul ci poosu président de la république jógewul ci poosu ministre yi jógewul ci poosu kenn ci poosu askan bu sénégalais jógee kiy jaay gerte gi kiy jaay caaf kiy dawal otom bi kiy xëy di dagg billet dem école ainsi de suite mbooleem kuy nekk secteur d'activité surtout le secteur informel c'est également haussent Euh, sa sa sa budget ñoom ñoo koy yokk mu kawee ma jàpp ne kon war nañ bu ñu teewete ci assemblée fa ñuy nase ko nocc yi ngir ëllëgu réew mi ngir politique réew mi ngir li contrôler action du gouvernement leneen lañ fa war a taxawee loolu nag nekk fa di dàggasante ak xasatante di def règlement de compte assemblée nationale bii ma gis muy dox ma jàpp ne suuxal ko sax seyal ko jële ko fi moo gën a ëpp njariñ nekk fa parce que nekkam amul njariñ askan bi amul benn impact bu mu jur ci askan bi amul benn impact sur le plan quotidien bu mu jur assemblée nationale bi may gis treizième législature bi dafa gën a gàccal suñu démocratie gën gàccal suñu ay politique publique ndax du lenn loo xam te ña ngi koy def théâtre lañ koy def ma tudde ko assemblée nationale mais contrairement du assemblée nationale parce que dans une assemblée dañ fay nasaka not ci lépp loo xam ne mooy la bon politique les politiques yi nga xam ne duñ ko définir euh, contrôler ko day jeexantal ci askan bi jamono bi askan baa ngi jël gaal yi di dem ñi di dee ci géej gi ñi di sonn napp gi naax saay